du régime de Macky Sall ou des magistrats du régime de, Mais nous, personnellement, nous, nous, par exemple, qui sommes là, mais il y a des gendarmes qui nous ont entendus quand on était là et qui sont encore là. Il y a des gendarmes qui nous ont mis en garde à vue. Il y a des pénitenciers qui ont gardé des gens en prison et ils sont encore là. Donc je pense quand même, il faudrait que les gens comprennent que cette justice, elle est là pour tout le monde. soit soit soo la wax à la justice dans sa kaw da ngay jub jubal da ngay jub jubal maintenant nak du ñak ay erreurs judiciaires partout dans le monde da ngay dégg ñu wax ay erreurs judiciaires mais ñi ce ne sont pas des dieux maa ngi dégg ñu nan ay justice yalla moko mom mais yalla mom mom lepp yalla mom mom lepp parce que mo créé ce monde là mais bu len arranger rek ñu ñëw nan no yalla mom mom justice na nangam nangam jub len jubal ku bëgg jamm ci réew mi da ngay jub jubal ku jubul yon dal sa kaw maintenant nak les commentaires, comme on dit en journalisme, les faits sont sacrés, le commentaire, il est libre. Dans ce pays, ku bëgg jàmm da ngay def jàmm ku fi def faire rek yoon dal sa kaw yoon nag amul yoon ma sàmb amul ma demb maintenant quand ça nous arrange, on arrange, ñu justice bi aux ordres Si on arrangeons, nous ne justice bi moo baax ku nekk est dans le pouvoir a bon yow li ngay wax baaxul ku nekk à l'opposition li ngay wax moo bon mais attends il faut arrêter. Merci.